yëpp koy naan crème. Ah, am jën ñaari pressia ak kii si Momo Novita ah, ah, taalibe sëñ Abdou Karim. ah jox ma tey. taalibe sëñ Abdou Karim. da ngay da ngay visibilité eh, da ngay. Eh. da ma déplacé bi. waaw ma la ñaari junni. am ma may la nga passé ñun am na njëkk boo bëggee ñu génn waat ñu namuñ dara

di def ni seen xel pour ñu ut kër. Mhm. di def seen xel pour ci ñu xamante si ni dañuy dem tournée internationale mhm. loolu VNA la mhm. yàlla moom mooy def loolu ci nit ak njiit man nag damay ñaanal ñëpp jàmm. Eh, booy booy booy xew démb toj nañ dëkk bi. mooy dem nañ si maam Ndiaye def fa doom gars yi jox leen seen. bët maam Ndiaye sama jigéen la na ko yàlla jàppale. waaw ah. mais xam bëgg mbay. booy nañ liggéey. man liggéey am ci ay wax mais mais Assane Bongo keroog toog nee na yow liggéey yow gis ngeen TikTok bi tu commentaire yi ah. man yooyu du ma ci man léegi fi mu am na moo tax dootoo ma dégg TikTok bi gars yi nee na nga bàyyi Bongo mag nga léegi nga bàyyi gars yi loolu lañ des boo yee wax mag bi mu ngi def lu gone yi mënut mag bi mu ngi def lu gone yi mënut mm-hmm. mag bi nañ jéem a mel ni mag bi moom moo gën te man xale bu ndaw laa li may def ci xew yi nit du ko def min def du ko def barki sëriñ Abdou Karim tamit dafa mel ne li Assane Bongo di wax ak li kii am Bongo di wax dëgg la di génneetu single génn ma jot waa barki ah, démb lan moo génn waa barki démb li ma génn la adduna bi yëpp di tiktok jabar xale boo amee jabar féexal xolam clip man daf maay clip man ba may clip kenn clipul ci Bongo maan man 2000 2009 laa commencé def clip man bu may clip kenn clipul ah il faut ñu war ne gars yi ñoo ko wax ne day day abu oto ak yooyu ah gars yi ah <laughs> tey. xanaa dem nga yow. non ah man fi nekk nii. réunion parce que parce que confrontation bi barki démb liñ ciy wax liñ ta si jox joxoñ baatu moom. waaw lañ la joxoon Assane Bongo li wax yëpp yëpp yëpp si yow. lan la ko Bijou ah man biisu xaw ma ko. lan la ko biisu wax déedéet booy wax kay da ngay wax li biis wax man xam nga. Hmm. boo gisatee ñu naan Vieux dañ lay gis léegi yaa ngi ci programme yi da ngay tëgg rek déggatuñ la. Hmm. gisatuñ la ci site yi waxatuñ waxatoo dara ku ñuy tontul. Hmm. doo tontu. tey jii boo demoon seeti beneen bongo maan lu mu wax ci man man du ma génn di tontu ndax aw ma jot nekkatuma ci tontu xam nga ci lan laa nekk ci liggéey nit ñi di gis mais liggéey gisatuñ la ak Vieux bi doon am xaalis amatul. ah, ah amatuma amatuma. Ah. xam nga ne su ma la xeleen di ko gëm mhm. maa ngi sant yàlla mais barke sëriñ Touba Mbacke tey la waalo gën a aay bëgguma wax nag tey la waa yàgg girib sugu sama xarit girib sugu sama xarit man girib sugu démb démb démb la ma woo moo doon yóbbu Ablata di sama xarit la man Amérique heure ma fa bëggee dem damay dem te kenn du ma yóbbu ah waaw yow am dix ans nga ne visa jeex na yow est-ce que wér na visa jeex na de Mbaye <laughs> Mbaye mbay man bay nit ñi di nelaw damaa liggéey sama lépp dama ko pare. boole woon na la ak Makotu Konte xaw ma. Makotu ku baax Makotu ku baax la maa ngi koy nuyu. ñoom Adjé Ndiaye amatoo ko. non ba tey maa ngi jokkoo ak ñoom suma téléphone ñoom ñëpp ñoom samay xarit lañ mbay yow fi mu toll nii da bëgg a jaay sa lii di ma dugal man jote maa kenn man jotewu maa kenn mbay ñoom ñëpp ah, Assane baal ma waxo Assane ku ñu jëfli nga tooy baal ma wax Assane kii woon su wax na la fi nee na xaw ma yow doo may may naa la ah? xaalis ñooñu nga may tuddal may man bëgguma loolu bay aw ma jotu noonu aw ma jotu noonu may naa la xaalis dix mille dama koy sarax dix saraxe ko damay génn tamit ci am ñoo xamante ne tey soxla nañ benn mille francs te amuñ ko suñ ñëwee tamit yàlla def ñu gis ma dégg naa da ngay fay ba Babacar Bongo pour mu lay tontu non kooku daf ma kooku bàyyi leen leen sama doom boobu kooku bëgguma ngeen koy du kooku dafa ñëw fekk ñu fi ñëw bëgg ma ni Viegna dama lay roy dama la bëgg. ah da may dàq ne wacce sama oto. wacce wacce wàccal sama oto. day fa lay continuer bay bay bay bëgguma tudd bëgguma bëgguma bëgguma nga tudd sama dom joy wacce sama oto. wa wa ya, wa dede da taxawal aja aja ma ngay wacce naa ñëwal ah abu auto ah da lay nappe rek. Viegna du bay nappe. no la ngay nappe rek dégg naa bongo ma asan bongo nak mo la xam. asan bongo ne da la xam parce que nek day nek si xam nga da la xam quoi. abu auto wax lu la neex. abbu ah. xaalis. Ah. yoroo xaalis parce que yow. kon nag ñu may abbu xaalis ñàkk nañ fay rek waroon ah. maa jox kon man dama abbu xaalis. mais sama sama lépp. dama mais si jaaykatu yoon bi ngay toog rek. sama koñ a ngi nii waaw sama koñ a ngi nii Nobita taalibi sëñ Abdou Karim bi sama xarit bi nga xam daf ma bëgg. Mhm. su tukkee moo gaaw ci man di indi ay yére yu baax di ma jox gën riis am jom. xoolul lu may am xoolul ni vieille ñaa mën naa sol xoolul ni vieille ñaa ngi dem fu ne ci àddina bi waaw waaw sant yàlla waaw baax na waaw dama jeexal mais moom nuyu naa la <laughs> mais moo Veña Veña si lan la nekk. Mbaye fu ne ngay fëlee. Hmm? fu ne ngay fëlee Mbaye. waaw fu ne ngay fëlee Mbaye. Veña bàyyi nga te ngaa jaay sa yër yi xale jigéen ñi xam nga xamante ne yaa maîtrise dëkk bi te bàyyi fi bongoman yi ngay fréquenté. bongoman bi sama waay la de dama la koy wax de. moom sama euh, yaay manager. barke alxuraan sama waay la. ah. te billaahi bu nga liggéey de caaxaanul de. Ah. waaw barke maam Charafaat caaxaanul day liggéey de allo. <laughs> mais Viña. Viña hmm? léegi yow lan moo tax Assane nee na mu ngi organiser bongo euh, kii euh, grand théâtre. Hmm. Hmm. mais yow lan moo tax réaliser defoo grand théâtre tax defoo Sorano ba pare nekk yaa fi nekk defoo dara yow tegoo gars yi si link nga ne yaa def nga fi dara. teg naa leen ci link de. non tegoo leen fi dara mooy affaire bi du wax. affaire bi liggéey la non tegoo de xam nga yow Viña fan nga doon ñeme waxee booy yi la. nga organiser grand euh, Sorano ne leen booy yi am sa sigal na nga ñëw. xam nga jiite leen. booy respecté nañ ma xam nga bëgg a jaay sa si bi non non ku wax booy yi xam nga booy bu euh, du yoon ne booy boo xamante booy boo woo teg micro mu xas la parce que tegoo leen si ligg da leen a ko dee. nañ ma xas rek bañ ma dana xas ba tey luñ ci gis. Uh-huh. nañuy xas rek nga xool. Euh, euh, dañ leen dañ leen a ko dee parce que nee na yéene woo leen. jërëjëf yéenewu ma leen ah. Uh-huh. ñu ni yéenewu ma uh-huh. jërëjëf man. suma ma yoree xolub kiñaan nit ñi xam nañ suma yoree xol baax nit ñi xaj na xol bi may yàlla may nii moom moo ma jàppale nii ba tey heure bii ma toll fi ma toll te day gën a yokk nag mbay xam nga loolu mhm. gis nga boo àndee ak yàlla yor xol bu rafet di dimbali say waajur bunt boo fëgg day nooy man nee naa leen dàquma fi kenn lenn waaye li yàlla def ci man dama koy sante man tamit man kon duma fi bongo maan waaye yàlla def na ci man loo xamante ni defu ko ci yeneen bongo maan yi te loolu dimbalu sunu borom la kon dama koy sante yàlla di wax booy yëpp képp kuy yor nekkat di taasu nañu liggéey te bàyyi wax chaque jour loolu laa nañu liggéey te bàyyi wax Bongo mën na la yóbbu yeneen level mën na la àggale feneen nañu liggéey te bàyyi wax bi loolu laay ñaanal ñëpp nañu liggéey te bàyyi wax aw ma dara leneen lu may wax lu ma waay waxal nag baal naa la mais man mën naa mënul del xëy di def lu mënul del xëy di dem fu mu mënta dem del xëy di yor lu mu mënta yor man ci loolu laa nekk léegi mais nekkatuma ci ay wax ak jabaay lu ma waay lu ma waay wax baal naa la du ma tontooti kenn de amatuma jot bi barki sëñ Abdou Karim amatuma jotu bongo man di wax may wax ndax level bi ma toll la du ma waxati nañ liggéey. mais gis nañ la eh, eh, eh, dematoo ci léegi Sonko nga wala ma Sall parce que gis nañu nga. politique ma sama yoon néew ci kenn man politique ma xam nga lan laay politiquer giir ñeeg xew yeeg programme yeeg contrat yi may woo ay Amérique Canada Londres. France Italie man ci loolu laa ne mais ay politique moom bu ma ko wax. man politique gu ma est-ce que ça kuy politique ak taasu politique nga dem taasu politique man moom politique wax dëgg yàlla su may politique ak géer ñi laay politique ak politique politique mm-hmm. ñu ñu doon la gis si si Pape Diouf chaque jour. Mm-hmm. ñu ne cosaan lay est que da koy dem gunge ji. Mm-hmm. parce que bi ñu joxee Waly Baara Moundé gis nañ sot bi ñëpp la so ñëpp ko ñëw setal. léegi Pape Diouf est-ce que mën nañ la faa gis la samedi. nga yow tamit nga yëkkati fa ay parce que gis nañ fa am bongoom waxal waa lu rëy est-ce yow doo doo yow est-ce que gis en cosaan nga dem may doole sa sa xarit ab. non man ñëpp samay xarit lañ lay. loolu ah Pape Waly hmm. man aw hmm. ma ah, fenn sens interdit. man néew ma ko mais mais mosoo dem nag si ñi dañ may laaj loolu sëñ man man. bokkuma ci ay lobi faruma kon am bokk si lobby déedéet waxuma loolu dama ne la boo dégg man la bokk si lobby non non dégg ah, mooy comme wax ñi dafa ñaaw ah, loolu dama ne la kon am bokk si dama ne la man lan moo tax doo ma gis dama bokkul ci yenn yi féetewuma faruma moo tax doo gis vie ñaa fenn loolu laa la wax Pape Diouf sama xarit la Waly sama xarit la keneen ak keneen samay xarit lañ ku ma ci neex man damay dem sa soirée mais la teew ci soirée mooy lan damay ne ci xew yi bii si si Pape Diouf a gis. Pape Diouf sama grand sama xarit. mosuñu laa gis si ma yàlla waa di ñaar baal ba muy depuis ba muy tëgg penc ma laa commencé topp boog dama fay ñëw mooy ñëw damay taxaw ci baar toog seetaan kii moo la moo ah, am nan la ma poussé mel ni am daane ne ci euh, euh, ram daan dafa bokk wala dara dafa ah, bokk non yooyu man yooyu lijjantiwuma ko non na contrat yëpp man lijjantiwuma la xamal la laa lijjanti mbay mm. fi waale teg tànk ma teg sama tànk fu ko raw fi Pape bii nag dina def lu kenn ma wax la ko tey jii. mais génne woo single génne baal ma single man ñaata at maa ngi génne single nga naa ma génnoo single single da laa man génn ma te heure ma bëggee dem dem heure ma bëggee toj dëkk bi toj dëkk barki démoo Njaay li ma def ci dëkk bi moom la nit ñi di tiktok jabar xale jabar xale boo amee jabar am bongo tam ñu ngi koy tiktok waaw non mbay kooku sama doomu nday la ñoo bokk Saalum kooku tey day wàcc si ba soor ma wàcc kafe kooku ñun Saalum Saalum yi ñoo bokk non mais ku nekk sa sa kër nga yóbbu naa la bëgguma nga may laaj vidéo ndax boo ma laajee vidéo bëgguma su ma tàngee du baax bàyyil noonu mu sedd booy daal li may wax mooy leen nañu liggéey nañu liggéey sama doomu ndey ngi ni nag Novita sama xarit la su ma génnee taal sama oto ñëw mbay na booy liggéey yàlla na leen yàlla defal jàmm aar bongo bi nañ bokk ndey nañ bokk bàyyi liggéey leen te bàyyi wax ji man de dootuma wax li ma wax nii mi dootuma waxati. frère maa ngi koy yore. naka waaye Baye Mbène maa ngi lay bëggee maa ngi lay siyaar suñu Fall maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax naxam na naka foofu mbaa lépp